Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Je l'ai fait parce que je suis brave, je l'ai fait parce que je suis courageux. Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain. demoon tiirante bi. ci lañ ko balaa boobu defoon na benn vidéo yàgg na. Hmm. di wax ne man euh, guerrier laa. du ma bokk mag yambar yi toog ci pale yi man damay dem ci front ba xeex euh, nekkul damaa am courage moo ma koy def waaye damaa bëgg dëkk bi jaar yoon lépp lu mu jar naa ko si def dafa mel ni comme vidéo dafa mel ni loolu tàggoo ni dañ mën a rey si mbedd bi donc loolu mu amee tamit euh, yaa oustaz ñu xool euh, xew-xew bi nu mu demee wax dëgg yàlla loolu mënta nekk ñu gis si ñaari bi rek moo mën a nekk suñu xool si wàllu analyse géopolitique pure bi si njëkk mooy dañ ko assassiné ci biir palem wala ci këram wala feneen Euh, def mise en scène waaye dafa dem xeex ay rebelle ay rebelle la rey pour bañ leen représailles yeeg ak yenn condamnation yi xam organisation internationale dañuy bañ ñoom ay coup d'état buñ nee rebelle la euh, coow lay xaw a wàññeeku waaye buñ nee coup d'état moom day am ay sanctions day am ay embargo day am des sax ay forces ñuy andi pour jéem a fokkatiwaat nguur gi donc euh, soit dañ ko assassiné mm-hmm. bëgg ko solal rebelle yi pour mën a mucc ci sanctions internationales yi ndax euh, su ma ko waxee xam naa dina jaaxal ñu bëri donc euh, waxuma ni euh, loolu te na ñenn ñu tasaare kooram moo ne jam yi ñu ko jam gis naa man benn koor bu ñu wane bi nga xam ne kooku wax dëgg yàlla du dis ah début ni xool photo Idriss Déby xam ne ko benn fois du ma wax deewul du wax tamit ni dee na waaye xam naa ni hmm. ci taarix su ma xoolee ku mel ni Saddam Hussein hmm. sagam demoon na ba jamono bi nga xam na ay sosi maanaam ñi nga xam ne dafa dem euh, dafa leen jël recruter leen ñu def ay opération ak ay changement si ñoom ba ñu nuroo ko moom teg-teg donc ba ñu nee raayin xam ne gëmuñu rey nañ ko ndax jàppoon nañ ni salam amoon na lopp ñaar la ñetti sosi te kooku tamit pion américain yi loolu moo ko américain yi ñoo àndoon moom la américain yi ngemboon sax pour mu dóor leen Iran kon kooku américain mun ñu ko jàpp lâché ko noonu hmm. euh, ñaareel ba ku mel ni Hitler Hitler instant yi dossier déclassifié yi waaye nañ ni en 1945 Hitler deewul woon ci bureau xaruloon woon Hitler dafa jëloon moom ak ay mbooloom yu bëri dañoo gàddaay Europe jaaree Espagne wàcc dem Argentine amoon nañ fa ay bunker yu ñu jëndoon ak ay suuf yu ngand genre île yi nga xam ne fa la toog dund dundam ba ni mu dee ba mu dee taxu ko yàgg noonu dundaat na lépp vingt ans foofu ci Argentine donc. ah bon waaw bëri na ay kilifa yi nga xam ne. am na fu ñu leer ci boppam Hitler Adolf Hitler ci boppam deewul 1945 loolu moom léegi euh, kenn waranteetu ko si ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre histoire euh, ñu ngi ñu ngi suivre yi donc bëri kon fu kilifa di toll fenn fi nga dafay egg ci porte de non retour bi nga ay partenaires yu ma àndal koy xamal carrément ne ko fi nga toll nii instant yi ñun on va te parce que instant yi mënatuñu de deux choses l'une dañ lay bàyyeeg gars yi gars lay fagaagal loolu soo bëggee ñun on t'extirpe jox la waaye da ngay da bàyyi une vie publique maanaam doo waxati télé doo feeñati dama nga toog nga dund sa noos sa noos nañ la defal dëkk si biir dëkk nga dund sa dund ba ni ngay dee. Hmm. te loolu man jàpp naa ni un responsable bu ñu ko bàyyi ñu bàyyi la nga dee ak bàyyi ñu bàyyi la defal la palais bu ngand bi nga xam ne di nga toog dund sa dund ba ni ngay dee di suivre information bi di wax ak sa ay njaboot ak wax dëgg yàlla jàpp naa ni ku xelu loolu la war a nangu ma gis tamit ni yow sa xel dàqul lu mel noonu mën naa am ci affaire man dàqu ma ni Idriss dañ ko dañ ko rawale hmm. parce que man ni ma gisee doomam waaw ah, ci laa la bëggoon laaj. bokk ku ñu rey léegi rek sa doom ñu ñëw. waaw arme bi nangu mu nekk seen kanam. bokk ci commission bi nga xam ne ñoom ñii militaire ñoom généraux yi. taxaw di wax doom boobu niróo la hmm. maanaam man nit du ñu àndandoo rek ñoom wax dëgg yàlla du ma ko def donc pour dire que rek léeg-léeg à à dañuy bëgg laal émotion doomu aadama yi pour ñu bañ a réfléchir pour ñu bañ a raisonner est euh, na mën na wéy di ànd ak soldat rebelle yi mën ñu jot euh, dafa yëg ci coup d'état dafa xam loolu de d'état donc euh, dafa dafa sécuriser boppam ci wàllu googu rebelle mënul egsi fi mu nekk xam ko toog 30 ans ci nguur kooku wax dëgg yàlla du ay rebelle ko mën daan mënul leen ne France moo ko mën daan te France moom seen nit la moom c'était l'homme de la France ci zone boobu mu nekk dëgg yàlla donte nag yaa gën a xumbal mel ni kuy xuloo xulool ak France su soxlaa xaalis France xaw a tëdd day génn wax ay wax France delluwaat jox ko waaye wax dëgg yàlla c'était un homme bi nga xam était utile au de la dimension ni ko gars yi contré ni dictateur laak dafa rey ay nit ak c'est vrai que def na ko waaye il était très utile sur la question de la gestion du terrorisme dans le Sahel Euh, terrorisme question terrorisme naka la nar a mujjee. ci laa naroon ñëw yow ndax yaa ngi wax ne moom maîtrise gënoon a maîtriser terroriste yi. Mhm. ba am fu leen yemale woon. effectivement bu ñu annoncé génn àddunaam nii lan la nu mën a jural. dafa am lu bëri lu muy libéré ndax soo xoolee zone Sahel. depuis 2013 en tout cas suñu xoolee ñun CEDEAO ak zone UEMOA bi yëpp agenda yi ñu fixé woon yëpp dans la lutte contre le terrorisme kenn benn dëkk respecté ko. lépp lu ñuy wax ci ay directive ne dëkk bu nekk andil nangam ci xaalis andil nangam ci ay homme andil nangam ci ay armes kenn respecté ko kenn benn armée kese mooy armée bi nga xam moo respecté loolu yëpp taxaw dëgg-dëgg au front di xeex mooy armée Tchad mooy bu armée bu Idriss Déby en dehors de moom ay jàmbur ñoo taxaw ci ci Sahel bi di xeex contre le terrorisme bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko tabax ñoo ko créé hmm. donc aujourd'hui Euh, hmm. dañu def benn plan de 2,3 milliards bi nga xam ne waxoon nañ ci dëkk yëpp plan ndax waxoon nañ ñoom terrorisme moo nar nekk au cœur de la ci quatre yi union européenne wax na ko ndax union européenne bokk na si ñu participer euh, ñu taxawal ay kuréel yoo xam ne yooyu yëpp kenn ku nekk mu ngi xeex terrorisme ndax dafa am concurrence entre le G5 bi nga fa la Tchad moom bokk am concurrence entre union africaine am concurrence avec euh, la la nu sax la CEDEAO ak concurrence toutes les forces européennes de l'OTAN yoo xam ñoo présent dans la du Sahel ñii ñëpp pour régler doo benn question kon am na une bu doy waar ci ginnaaw li nga xam ne te buñu demee ba toog Sénégal mhm. ay officiel maanaam ay ministre euh, de la justice ay premier ay ministre de l' intérieur ay ministre des affaires di dem ci ay médias internationaux di jéem a yëngal une question du terrorisme bi nga xam ne euh, ñun wax dëgg yàlla xamuñu ko amuñu ko mm-hmm. war suñu xel war na teey sur cette question là nakal nar a mujjee parce que Sahel bi instant yi mm-hmm. euh, dafa mel ni moom mooy le nouveau orient mooy nouvel orient orient li mu meloon ci terrorisme mooy zone Afghanistan Syrie Irak dafa mel dañoo transféré terrorisme boobu fii ci biir Afrique subsaharienne te loolu ñun ñii pays africain ñoo war a gën a teey si question boobu ndax bu ñu demee ba lu ma treize armées mm-hmm. teewandoo suñu zone bi Hmm. commencé si armée États-Unis États-Unis dafa am fi base sax Sénégal am na fi ñaari base euh, Russie hmm. euh, Espagne Finlande Suède euh, Danemark hmm. Italie Belgique maanaam dëkk yu mag yëpp ànd nañu ay militaire ñu ngi fii Sahel te ñun amuñu benn militaire bu nekk seen ay dëkk ñoom loolu war nañoo xaar loolu war nañoo tiit loolu war a tiit loolu d' accord am na solo loolu mënutoon a ñàkk ñu def ci jàngat en tant que kuy euh, gëstu ci wàllu politique bi nga xam ne ni moo am ci mm. Afrique ak ci àdduna bi Idrissa Déby Déby lu mat fanweeri at ñuy wax ne toog na ko ci Tchad ñu xëy rek ñu ne def nañu élection gàññ ne ko tey suba ga faat nañu ko mm. lu ko faat euh, ñi ngi laam-laamee ay robel yum génnoon jëmmarloog ñoom te amul beneen bakkan bu ñuy wax ne rot na ca mm-hmm. maanaam benn Idrissa Déby la ñuy wax ne faat na ko en mm. tant que président mm-hmm. garde yi say militaire ñëpp amul kenn kuñ annoncé ne rayandoo nañ ko yow lu dul yow mm-hmm. kese mm-hmm. loolu yi tamit li nga xam ne moom la professeur jàngat ñun ñëpp nañ ci bokk bàyyi ci xel mm-hmm. ana Idrissa Déby première question ana ah. Idrissa Déby waaw ana Idrissa Déby loolu moom ku nekk war na ko poser question beneen bi mooy ku roy Idrissa Déby mhm. waaw ku roy Idrissa Déby mhm. euh, ndax dañuy jël rek li ñu jox rek ñu ne ah kon loolu la wala war nañoo gëstu mhm. euh, Idrissa Déby ndax bis bi ñu wax ne ci la faatu ci la faatu ndax niñ wax ne ci la faatoo noonu la faatoo ndax ñiñ wax ne ñoo ko faat ñooña ñoo ko faat ndax faatu na yooyu yëpp di question yoo xam ne nii ku ci poser question topp yi weesu woon euh, ba li xew du ñàkk benn résultat boo xam ne nii mën nga ko cee jëlee